xolam ba dootul bëgg sëy waaye seen saxam nday ngeen ne yéen a baax waaye yéen yéen pour yéen seen yéen a baax quoi seen doom yee baax quoi doomu jàmbur yi baaxuñu seen data nday yi waaye yéen boo waxee ñu naan la non xam nga sama belle-mère waroo tontu eh belle-mère bu bëggee doom day bëgg doomu ndayu jàmbur belle-mère doomee xaram kese la doomam di indi xaj mu ne bëgguma ko yéen yéen ay ñan du ngeen am sagam ndayam doomu jàmbur ñëw seen kër di sagak yéen te yàlla tax xoolu ci yéen cottu ndayam ngeen bëgg a jàpp doomu jàmbur yi jàppee la ndayu esclave eh man du ma katta ndayam topp benn belle di la defal lu ma amul ku ci bañ sa data nday li jëntiwu ma ndayu kenn man j'ai mes enfants j'ai tout ce qu'il me faut j'ai tout ce qu'il me faut j'ai da ngeen di pousser ndayu nit ba à lii da ko yàgg xaar ba nga ñëw Sénégal man de man wa nit ñi de wo nañ ma ne ma sax wa do wo police non nga wo police man may doomu nday français ban police mo ñëw taxaw sama kanam naan nak may japp yeen xana da ngay na dof moy yéene bi nga am ci man non nga wo police ah nan man de ah, dama dem ci xewi ah, nit ñi dima ki nit ñi dima dima dima dima di joxoñ man dama mësa a taf sa doom dama mësa taxaw fenn ne mais Fatou Diop sama go, yow koko waxul nu mu koy xamee lii mooy hypocrite ak kat Sénégal boobu yow bëgg nga ma wax li ma bëgg wax mais yaa koy jaagale si ni ñi kenn waxu la kenn fii nga jàpp topp sa doom kii dañ koo maltraité jëkkëram da koy maltraité di ko a wax a wax a wax ba mu jël dëbësam ñëw toog nga jël doomu jàmbur yóbbu kaso yóbbu police di ko yéeg tribunal ak sa doom tribunal wàcc tribunal wàcc pour leen loolu mooy sëy loolooy vie jàpp doomu jàmbur di leen maltraité yaakaar ne say doom dinañu am bànneexu sëy am satu na nga jéggal ma barki Seydina Muhammad bu doon sama sago du ma yegg ak fii boobu ba tey maa ngi lay wax am satu boobu ba tey maa ngi lay wax nga jéggal ma bu baax a baax ndax boobu ba tey bu ma toogee yow laa xool nu ma la wusee mais damaa dem ba mënatuma parce que yaay bu nekk yaay la ba muy metti dëgg samay doom ñu nar leen nangu sama yaay déplacé wu ñëw sa kër ndey sa yaay dakaa ne doom dafa saf ci xol te boobu ay doom yu ndaw laa yor uteeg pamataar yi mii nga xam ne xuuram yi dëj nañu koo yam dëj sama doom yi seen koo yi dëjagul léegi-léegi boo demee dagg day naaj amee xaram yow kattal sa nday génn sama live sa data nday xam nga ne paama taara leen may accès pour ngeen toog ba mën a gaaruwaale sama nday doomu cottu nday mi ngeen kii biddéew bokkul biddéew bokkul man belle famille bi considéré ma leen comme belle famille voilà man belle famille man man yaay lay doon euleuk sama dom bi sama dom yu góor dañuy am euleuk jabar yalla nama ma yàlla musal ci belle famille yu toj sen cottu nday man li ma dund man ci bir néegu sey ak ay belle famille ñaanuma ko yalla ci kaw suuf dundal ko jigen bu sama dom di indi nan mako bëgg man dama bëgg sama dom man man j'ai fait des enfants avec amour wajur bu defewul dom avec amour koku sa dom bu indee golo sax xet wala pou bu sax dang koy jep ndax bu go sa dom. tu l'as fait par malheur motax de len defal sen domi avec amour parce que da ngay bëgg sa dom ba lum la indil sax do ko gëmee yalla nañu yalla musal ndayu ci belle famille yalla buñu bu doon yaay yu yaay yuy toroxal doomu jàmbur doomee xaj kattan ndayam fo intérêt kessé ngeen di top, sen saram nday yow tal yow mati boko waxul mu arrêté yow lay toj sa cottu nday toj sa cottu ndayu wa kër mom awma lumay lu ndayam parce que domé ram la bayam ko kattan ndayam la ndax heure buma dugalé vidéo TikTok ah, WhatsApp moo koy njëkk a vu ama lu may lu lijjanti ci ñoom yow laay katta sanday comme yéen yéen yéen yéenay doomeeraam yi ba moom mati mu làkka ndayam ak baayam di saagalu sa ak sa baay comme yow ku ñàkka ndayu jom ñu jiital nga mel ni ndayu jigéen ni sa yaay jiitalee sa baay noonu lañ la jiitalee naa katt sanday yow paamataan voilà comme yow ni ñu jiit sa baay niñ ko jiitalee mu mel ni ndayu muus si diggu kër gi yow noonu la la matti jiitale ba ñuy katt sa nday di toj sa cottu nday boobu ba tey ndax benn jigéen di naa laax sa data nday yow ba sama yaay dootu ko tudd ma toog ndayu sama famille ñëpp chaque jour ñu yónnee ma ndayu ay vidéo chaque jour ñu yónnee ma ndayu ay vidéo YouTube seen data nday wala yow sama yaay daa waxul rek yow boo doon nit ku baax yow au moins di nga ne yaayu jóor de bu dee benn fan sax daan na bàyyi nelawam di ma yedd lu ma sama yaay daanul defal di toog di waxtaan ak yow guddeeg bëccëg di la conseil di la delloo si doomu saram ndayam bi amoo loo koy fay lu dul toroxal doomam ba pare waxati noppi nga wut benn caga pour muy toog di wax si moom naa toj sa data nday dugal ci ndayu ay marto piqueur xaaral rek doomee xaram kenn ku noppi rek ngeen yaakaar ne noo a ah, moom du wax man dama doon boobu ba tey am satu laa ci seet de amul ci yéen ku ma ciy seet parce que ay jaam ngeen ndayam doomee xaj sama yaay dafa baax dafa baax seen benn nday baaxul ku dem màq ku ne sa nopp yi war nga ciy dégg lu baax Codou faal seen doom seen doom day jël fu ñuy tojee seen data day tegal leen ko ngeen koy déglu teg yaayam màq la jóge papam di imam seen doom bu jigéen bi topp ci ma pamataar heure bu ñu saagee nday pamataar moo ko indi teg ko ci ëtt bi ñëpp di dégg ngeen ne yéen da geen a yiw yéen yéen a gën a yiw ñun duñu dégg lu bon ñun duñu kii duñu lale man de sama yaay dadul déglu sax xoolal lii buñ koy baax ci Nabil Moustapha bu ma leen tegalee sama audio yaay wallaahi azim bu nekkul xolal su nekkuloon sama rakk bu ma déglu woon sama yaay rek du ma wax boo waxee mu ne ah bàyyi naa leen ak yàlla àddina amul solo xëy na ñoom ñoo ma yéene lii ñoom ñooy wax lii mais yàlla baax na ah man dama may dem seen kër li ma fa sol de wax dëgg yàlla cuub laa sol te yaa jënd cuub bi jox ma cuub bu deux cent cinquante euros te France nga ko jëndee bàyyi leen garaaw ñoom xëy na alalu àddina la man bu ma amoon sagar sax dem fa yow yaa ma ko jaral parce que yaay sama doom yaa nekkoon ak seen doom nga bëgg ko problème am boo ma yónnee damay dem loolu lan day ju baax di def waaye ay messieurs ay ginaar on s'en fout de messieurs ginaar loo xam ne koy kattandaayam lekk yóbbu ko ci douche bi puub ko ban intérêt la am sama kër gi karo bi ma ci def maabalu télé bi maabalu lii yàlla nit ñi am nday boo xoolal ñi am ñi am xoolal ñi am dëgg dëgg dëgg dëgg dañu génn naan lii laa am yéen amu leen saram ndayam lu leen dab la moo tax ngeen fuuy beew nag daa yomb da ngeen di dem ngeen laaj gooro am satu lan laa bokk ak moom gooro am satu dem leen ngeen gëstu lan laa bokk ak moom te goo am satu boobu lam ma xolal lam la la man sama maam def ci yéen yéen sama maama leen njëkk xàllal sama maam leen njëkk daggal téere dama bëgg ngeen rek le ngeen dem lacce kan mooy joor yàlla xamoon boole mais ndekete ay jaam ngeen yéen xamu leen urus përëm ngeen xam depuis ñaata at yéen may toog balaa maa dee man de suma neexoon paa ma tax du la takk am ay doom mel ni yaay yàlla man ni ma nit ñi koñ bi liñ may wax koñ bi de foo tourné ñu naan la kon yow yow koñ bi foo tourné kan moo ma xam te ba ma ñëwee ñëpp nga ma wërale sama doom kii la tax sama doom kii la tax bu nekkoon ne xay xam nañ ma kon bu ma rombe dinañ ma waa kii du joor jabaru paama tax mais mais heure chaque kii taayale lan nga fi wax man de am na ku ma woo ne ma daf may fay ma génn laayval la pour ma ne da ngaa kidnappé sama doom fu ma kidnappé sa doom sa doom tëdd fii ma koy jox muy lekk ba suur ma koy bëgg a jolle lu neex muy namp mais ween yu foo ngeen ne maa ko kidnappé bànneexu baqe na ma ko fi téye woon du man te mais xam ngeen ko bëgg yaq moo tax ngeen di wax yi ngeen di wax ni yéen pa ma a tax ngeen mere ma avant muy ñew fi da ngeen ne bu ñew da ngeen koy bayyi adina ak àllaaxira bala muy ñew ngeen di wax la tout pour man ma bayyi ko ba ngeen xamé ne bàyyiwuma ko ngeen bayyi man ak fa xuloog man yeen ñepp ma bayyi ndax mom ndax li ngeen bëggoon defuma ko te mom ne ngeen ko mu bàyyi ma mais yeen bëgg ngeen mu nekk ak mati ndax lan wéccit bimu leen di jox parce que xet ngeen li ma leen di jox léegi anamu anamu te Maty da di may ngeen taxaw ne noo mayuñu mati li muy def ngeen taxaw ne noo defu ko waxu ko te yéen a ngi gis ne moo koy wax ma yónnee leen ay vidéo ngeen teg si seen bët ngeen ne dee Maty waxul lii mais yéen est-ce que ça va ngeen ne ay jullit ngeen yéen a ngi julli yen bi yeboo ngeen sangu set ngeen toogaat si seetu ngeen toog ngeen réfléchir est-ce que ñun lii ñuy teg joor nii lii la ñu jiw ñun waaw Fama bis nag li ñu bëgg dama leen koy may xam nga lu tax. nga lu tax kuy àtte dëgg di nga gis ne boobu ba tey joor mi ngi daw lii kuy àtte dëgg dëgg di gis ne joor boobu ba tey mi ngi daw lii mais munu toog di ko daw ñuy jël mati di ko teg li ñu bëgg a wax ñoom mati lañ koy wax loo pour mu wax ko sama yaay may toj seen cottu nday ñoom laay toj seen cottu nday man sama nday moo ma leen gënal bu dee dof bu dee golo ak lu mu mën a doon moo ma leen gënal rawatinaan mu gën leen nag. comme yow Paa Matar dagg sant nga maa ngi xaar ba nga pare taal sa laay ma tojaat sa cottu nday taf ndayu sa yaay taf ndayu sa baay ma katt sa nday ba ngay nga def def lu ma dëgg Italie nga dëggal sa bopp génn taxaw pa via ma katt sa nday jam la woo police yow tu ma connais pas non mais xaj yéen seen doom nekk fi ñaata weer maa yor seen dépense te dinaa ko tas ndayu ci tiktok bi su ma paree da ngeen ne Pape Matar ba mu nekkee ci kër gi musul yónnee dépense dinaa jël lépp man li ma yónnee waxuma nit ñi de dinaa jël lépp tey posté ko tiktok àddina ñëpp gis ni yu dëgg ak luy fen ngeen yàq ndayu sama der da ngeen ne sama yaay amu lu ko metti am na lu ko metti mee xam na ne ay baadoo la la ko sekkal xam na ne ay jaam la ko sekkal doomee xaj sama yaay nga xam ne day xëy di ma woo guddeeg bëccëg du ma ko wuy bu ma nekkeek seen doom guddeeg bëccëg daf may woo Pape Matar ne ma joor sa yaay mi ngi lay woo ma ne ko man munu ma toog di wuyu sama yaay te yow sa nday du la woo parce que xaalis ba xaalis nga koy woo allo Pape Matar na nga def yaa ngi ci jàmm ay Pape Matar ba yaa ngi góorgóorlu sama doom ji kaf agréé non non non allo dépense bi ñëwul de dépense bi yéex na de allo lii allo le man dama soxlaati ndayam bokk seen famille seen saram nday ay yow say boo xam ne yaa ngi wax xaar weer dee nga def lii li ma doon def yëpp dama ko doon def ndax paamataar jëmmi paamataar mais pas yéen paamataar laa ko doon defal mais pas yéen yéen na ngeen ma jaral dara yaay yoo xam ne du ngeen jox affection affection seen doom man ba ma demee Sénégal xëy ànd ak Mouhamed ambassade France ba ma ñëwee ànd ak sama yaay dama ñëw fekk paamataar di bale ëtt doom joo xam ne mooy taaw ci kër gi ngeen jàppee ko ndayu dof naan kii kenn amul lu muy hérité ci moom xanaa garabu koko xanaa doomam bi bu juddu woon de garabu koko fii laa toog doomam dee doom boo xam ne nooyiwul ngeen naan ma ndox la ndox kii de doomam bi nga xam ne ndox la moom lay jooy ak doom ni mu fooree ku am bakkan am nopp am loxo am lépp dee jooyu leen man de du ma woo sa yaay parce que sa yaay woowu ma di dem bay tongook sama yaay yaay goro ngay tongoog sama yaay mais ça va sama yaay jël téléphone am woo la lan mooy grandeur u àddina léegi nag comme léegi gat sa gat sa la yéen laay toj seen nay nday mati toog ma xool Pa Matar ndax ndayam ak baayam ñoo ko gënal yaayu mateeg pa kii comme baayu mati lay déggal ku déggalul ndayam xam nga sa papa tu la wax nga déggal ko papay mati mu instant bi mooy sa baay bu la nee puubal nga puub sa baay nag laay saaga ndayam ma xool ci tu vas continuer doomee xaj sa caapan alalu adina, dip mati di la mati ciow li lepp mo la ko indil li lepp ko fay moo ko indil lu lunette yi yow ay doomu jigen ñoo tabaski bi ma Papa Tall waxal joor na ma parce que man sama loxo dugg na seen diggante sa data nday balu mala la nday te wax naa ko Papa Tall nee naa ko balu mala te mala la ñaari rakala la wax man ma tok ñanna yalla suñu boroom li nga def ko fay yàlla na ko yàlla teg ci sa ay kaw njaboot damay dee wala damay dund yàlla nga toog yow ba sa njaboot fu ñu dugg say jàmm duñ ko fa am bànneex duñ ko fa am nakar gi nga ma teg yàlla na ko yàlla teg say doom yu jigéen yàlla na ko yàlla teg say doom yu jigéen mère Fatou Diop moom mënuma ko ñaanal nakar bi yàlla na ko yàlla teg ay doomam wala ay sëtam parce que am satu dafa am doom bu jigéen mais le reste bu nekkee ci ñeneen ñi yàlla na leen ko yàlla te kenn rek laa fay laa laa xam ne mooy Amsatou bu ma saagee ndayu Pamataar sax yaayam laa saaga mais dama koo avertir ba tas ba mujj bi barki dem ba dama ko ne boo demee ba gis loo xam ne def naa ko rek bul ma ko jàppee damaa sës trop yaay bu ñu laal ndayu yaay nga sama yaay moo gën sa nday mère Fat Diop kon nag basta sama yaay moo gën ndayu koo fay nii ndax naa fekk bu mag mooy kii foo fekk naa fekk bëtam yi du leer yow yàllaa xam lan moo tax mayu la ay bët yu set yow boo doon gis gis dëgg ñoo ma ne ay jëkkëru sëriñ laa yor yéen ñëpp bokko ci xeex bi sa jëkkër sëriñ la yéen ñëpp ànda pour xeex ma man parce que mati da leen di may weccit seen saram nday lan mooy weccit xanaa ragulu leen seen bàmmeel bu ngeen deewee ndax weccit moo leen fay fekk jël doomu jàmbur jàpp ko di ko liggéey jël doomu jàmbur jàpp ko di ko yàq jël doomu jàmbur di ko toroxal di ko xabtaal pour muy wax yéen du ay jullit du ay nit yu baax baaxu leen ci kër baaxu leen ci dara daam yenn nit yoo xam ne yenn goro yoo xam ne yàlla waru leen may ndayu ay doom yu góor yéen doom yu jigéen da leen yàlla war a may doomee xaj